mam jaara soxna jaara mam jaara kenn du mel ni mam jaara soxna jaara mam jaara kenn du mel ni mam jaara bu sa baali soxna jaara mam jaara bilaay walaay loolu dëgg la soxna jaara mam jaara ana soppe yi soxna jaara yëngu leen soxna jaara mam jaara bilaay walaay loolu dëgg la soxna jaara mam jaara aca muritoo nanu waajal poroxaan soxna jaara mam jaara

jam soxna jaara maam jaara kenn du mel ni bala Aysa moo defar jumaa jamu ma kër maam jaara la ca tee dal di def daara soog a dem donga yaa ngi kenn du ni jam soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara looloo waral guddi roobaa ngi mu xàll ba jëkkoon danu daalaaj ñi di yokku waaw bu jëkkoon danu daalaaj ñi di yokku carte yaa ngi moonu ko jox muy liggéey bu sell tawel soxna jaara mam jaara kenn du mel ni mam waaw waaw bu jëkkoon danu daalaaj ñi di yokku carte yaa ngi moonu ko jox muy liggéey bu sell tawel soxna jaara mam jaara nekk nana looloo waral jigéen ñaa ngay rang ku nekk nana doole jëmdukat ak i xel soxna jaara rek ko ko jar soxna jaara mam jaara ba ca balla looloo waral jigéen ñaa ngay ku nekk nana doole jëmdukat ak i xel soxna

képp kuy jullit na yaayi sëñ Bass ak Makhtar soxna jaara mam jaara kenn mel ni ku sa baay doktooru jàkkare ku la am doo tuur keneen ak boo amee sa jaxle demal soxna jaara mam jaara kenn mel ni ku sa baay doktooru jàkkare ku la am doo tuur soxna jaara mooy jaara mam jaara waaw waaw soxna jaara sa gone yaa ngay mooñ dina ñax ma ñax soxna jaara sa gone yaa ngay mooñ dina ñax ma ñax bu sa baali moo aya tey ñépp ngay jamax jamax soxna jaara mam jaara ah laloo waral jéegi poroxaan kuy faliiru loxo boole kunku nga kanga ci kan bu njëlee wax leen looloo waral jéegi poroxaan kuy baliiru loxo loxee boole kunkung ak ka nga ci kan ku njëlee ñu naa bin ban soxna jaara mam jaara kenn bala ay sa sëriñ Basiiru neex na ma neex naa ko maa ngi koy mami sëriñ Mbàkke ku mu neex àjjana nga lay xaar sëriñ Basiiru neex na ma neex maa ngi koy neexal mami sëriñ Mbàkke ku mu neex àjjana nga lay xaar neex na ma neex naa ko. maa ngi koy neex. mami Serigne Mbacke ku mu neex. àjjana nga lay xaar. Serigne Basiru neex na ma neex naa ko. maa ngi koy neexal. mami Serigne Mbacke ku mu neex. àjjana nga lay xaar. wax leer mami Serigne Mbacke ku mu neex. àjjana nga lay xaar. mami Serigne Mbacke ku mu neex. àjjana nga lay xaar. wax leer mami Serigne Mbacke ku mu neex. jonan ziyaare jonan ziyaare képp kuy jullit na nga waaj ñuy ziyaare nan ziyaare nan ziyaare képp kuy jullit na nga waaj ñuy ziyaare wax leen nan ziyaare nan ziyaare loxoy ca kaw kuy jullit na nga waaj ñuy siyaar cheikh moustapha basiru yàlla na yàlla dolli ay leeram sëriñ mbàkke madina général ba yàlla na ko yàlla fayal